professeur Moussa Diaw ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM. maa ngi leen di fay. di fàttali suñu auditeurs yi ne ñoo ngi koy dalal moom mi di enseignant chercheur en sciences politique ca université Gaston Berger bu Saint-Louis tey euh, ñuy nemmeeku ay candidature yu bëri euh, ku ci nekk di yëglu ca APR euh, APR bi nga xam ne bokk na ci benn coalition tey ji loo foog ne ci jàngat moo waral candidature yi. candidature yi suñ ko ko gisee day wane ni. euh, leader politique yi am nañu am nañu ambition. et que soo ko gisee aussi si benn si benn parti c'est que ne parti boobu kenn organisé wu ko kenn structuré wu ko parce que parti bu ñu organisé structuré wu ko euh, structuré ko. Euh, ku si nekk dana xam kan mooy leader ci département bu nekk. Mm-hmm. Euh, département bu ñu nekk leader yi ku ci nekk xam nga sa position. et puis kooku su fekkee organiser ñu ko loolu du am problème. Mm-hmm. waaye suñu gisee nag lii mooy wane ni. parti am nañu liggéey yu bare bu ñu war a def si seen biir démocratisation parti des na e donc ambition heurte yi entre leaders yi da day dañ koy dañ koy wane dañ koy dafay am. Mm-hmm. Euh, ñooñu nag euh, seen seen seen seen problème mooy ñoom duñu considérer que ni au niveau local la. te citoyens ñoom ñooy wote te ñoom am nañu ambition am nañu pro am nañu projet ba nga xam ne mën nañ ko proposer ci ci ci ci maire yi nga xam ne ñoo fa ñu nekk candidature. Mm. loolu moo tax li candidature bare ci coalition yi surtout coalition majorité bi. Mm-hmm. candidature bari ci coalition yi gis nañ ne chef de parti APR ci boppam daal dina artu wax ne bëggul benn yoon ay liste parallèle li ni mel euh, euh, niruwul défiance. oui oui mën na nekk défiance parce que dañu considérer que ni euh, président bi ma ngi jeexal mandat parce que mooy dernier mandat et que ñoom am nañu ambition dañu bëgg continuer dañu am ambition am ay projet pour pour seen localité pour seen seen seen dëkk euh, seen capitale euh, département département bi moo tax ñu ci bare dañu donc euh, ni loolu interdiction boo président bi wax kooku mënu mënul nekk parce que comme moom ci boppam sax organisé wul parti am loolu dafa wane ni leaders yi ñoom itam dañu jël seen matukaay daal di daal di def seen liste mhm. moom sa bañ na ko waxoon na ko am na ay élection xamoon waxoon na ko def na ko ni dafay sanctionné mais yii gis nag ni ma ni ma gisee enjeu yi ci nekk ma yaakaar ne mënul sanctionné parce que dafay dafay wane ne rek euh, dans tous les cas mënul mënul dem ba ci fin wu logique am bu nga xam ni dafay interdire ay ay listes parallèles listes parallèles kooku c'est inévitable. Mm-hmm. gis nañ ko certains départements. yoo nga xam ni euh, ci majorité bi sax ñaari ñaari leader ña nga fa. Mm-hmm. mooy euh, mooy Kaffrine par exemple. Euh, ñaari leader yi nga xam ñoo bokk benn coalition. Mm-hmm. te kooku choix bi day difficile dama xamul nan lay président bi di imposer généralement ministre yi ñoo am gën a am chance parce que seen influence moo gën a moo gën a rëy. Mm-hmm. ñu yaakaar ni foofu mën na am ay jafe-jafe mais beneen beneen kii bi beneen exemple mooy Saint-Louis. fi ñu nekk ci Saint-Louis Saint-Louis gis nañ ko. Euh, euh, ba frère présent bi moo fi nekk. moo mm. nekk maire te yaakaar ne dafa bëgg a continuer. Mm-hmm. mais aussi am na candidature ba nga xam ne déclaré na boppam mooy Mary Teuw. Euh, te coalition bi la bokk ne ko ministre. Mm-hmm. mais moom itam dafa am projet. te dafa yaakaar wax na ko d'ailleurs ni ci ci ci département yi. Mm-hmm. citoyen ñooy wote. citoyen ñooy wote nag projet ba nga xam ne gis nañ ci seen bopp loolu moo tax moom leader la. te moom nag bëggul euh, mënul yaakaaruma daal mu respecté bu consigne boobu nga xam ne président bi jox na ko je pense que dafay def listam euh, ak coalition bu may àndal daal di euh, poser candidature am comme naka maire bi xam ni moo fi nekk mën a continuer aussi poser candidature loolu nag ay jafe-jafe la indi. Mhm. ci fekkee ne président mu def soi am ma yaakaar ne nag mérite fi mu taxaw ak projet bu mu am bi. yaakaar ne neruwul kuy dellu gannaaw. et justement euh, bu ñu weesoo choix boobule yan lan la mën a jur euh, ci coalition bi d'abord comme euh, exemple Kaffrine bi nga joxe ak ci parti bi même comme Saint-Louis tamit exemple yi nga joxe. waaw euh, ci ci coalition bi mën nañ di ay jafe-jafe parce que euh, Kaffrine xam socialiste moo fa nekk. Mm-hmm. Euh, te le ministre Ablaye Sow moo itam mu nekk ci ci APR lii du nekk cadre APR moom itam bëgg na nekk candidat mm-hmm. te ñoo bokk benn coalition loolu nag mën lay di jafe-jafe ci coalition bi gis ni dégg nañu sax ni Abdoulaye Wilane muy waxee ni moom. Euh, par euh, par respect la ko lu ko waxee ah yooyu yëpp soo ko déggee nu muy waxee par respect ci consigne du président bi joxe moom moom la wax théoriquement da dana ko dana ko respecté mhm. ay consigne la waaye nag euh, réalité politique yi yeneen la parce que ci foofu ci département yi ku ci nekk danga am sa ay relation ku ci nekk da nga am sa ay réseau mhm. ku ci nekk da nga am ñu la ñu la gën ci région bi ak en fonction ci département en fonction résultat yi nga fa am mhm. su liggéey nga sa mairie am nga euh, déggoo nga ak citoyens yi yaa ngi yaa ngi saafara seen jafe-jafe euh, ci seen dund ak yooyu da ngay am relation relation nga xam ne affectivité lay doon entre entre yow ak population te nag soo nekkee candidat ñooñu bari mën nañu lay jàppale euh, plutôt que ministre ba nga xam ne kooku moom ministre moo tax mu ñu mm-hmm. nii moom am na atout parce que titre ministre la yore te kooku peut-être pour parti bi mën na soutenir kooku ñoo lool ñu bari moo leen loolu moo ministre yu bari loolu loolu mais réalité bi c'est autre chose mm-hmm. parce que ñu nekk ci terrain bi ñu xam citoyen très longtemps ñoom ma yaakaar ni ñoom la citoyen gën a am confiance ñoom pour woteel leen loolu na mooy dina indi ay jafe-jafe ci majorité bi l'autre côté mooy côté euh, Saint-Louis mhm. euh, boobu gis nañu ni euh, consigne bi niru niruwul ñu koy respecté ñu ngi koy respecté fii en tout cas ñaari liste moo moo risque de am wala ñeneen ay yeneen risque da dana am mhm. parce que yeneen ñeneen ñeneen formation yi waxaguñu déclaré guñu candidature mais li ñu jot a déclaré mooy Mansour Faye en tout cas waxagul clairement ni dafay kii mais de euh, sous sous-entendu ah ni dafay prolonger mandat et Mary moom itam wax na ko yàlla si na ci te wax na li tax mu def ko te loolu ay dëkk-dëkk lay indi ci biir coalition wu benn boo ko yaakaar. tey justement lan moo waroon doon taxawaayu opposition ci lii nga xam ne mooy xew au sein de la mouvance. Euh, opposition bi nag moom itam euh, opposition c'est que opposition bi déggoowuñ ci dara waaw déggoowuñ ci même su fekkee ni ci biir opposition am na leader yu xam ni. am nañu ay base am na xam ne nag amuñu benn base amuñu dara. Mhm. c'est-à-dire titre parti rek la ñu yore et di dem ci média yi ay personnalité médiatique la ñu euh, mais ñooñu nag amuñu amuñu dara mënuñu mobiliser dara te am na nga xam ne defoon nañ sax seen preuve mais amuñ ci benn résultat mais da leen di dégg ñuy wax toujours ñoom duñu bëgg toujours am nañu ko wax sax ne dañu bëgg nekk président waaye loolu nag yooyu yëpp ci ay discours la rek discours politique la mais lu leen lu am lu am solo mooy ñoom opposition bi. Euh, élection yi test lay doon. Mhm. te nag war nañu déggoo ci seen biir daal di tànn ka xam ni daal moom mën na leen jiite ci région ci département bu nekk te am ñoom am nañ fa base. Euh, maa ngi xalaat euh, Pastef par exemple ñoom am nañu ay base ñoom am nañu capacité mobilisation. dañuy hmm. seet ci seen biir man kan moo leen mën a moo mën a dérégler seen liste ñu déggoo yeneen membre opposition soutenir leen ñu mën a ñu mën a jàll ñu def loolu nag ci département bu nekk par département bu nekk loolu suñ ko defee ñu déggoo ci liste mais daañu mën a jàll mais nag su fekkee déggoo wuñu ci nekk bëgg a def def solo bëgg a def ay ti kii démarche individuelle. Hmm. ou individualiste loolu nag ay jafe-jafe la indi day fekk ñu tasoo tasaaroo te suñu tasaaroo nag ah sowtuwul seen résultat bu baax na yaakaar ne nag lii test la bu am doole la bu am solo la. Mm-hmm. te war nañu déggoo wane ni ñoom kat war nañu déggoo ci ay projet de société. au niveau ci département yi ñu mën a nag mën a sukkandiku ci loolu mën a gën a dëgëral seen position et puis mën a euh, xalaat yeneen échéance électorale yu dul jëw yu ñëw yu euh, deux mille deux mille vingt deux ak normalement deux mille vingt quatre waaye ndax yow jàpp nga ne donc coalition Benno rek moo mën a euh, dooleel opposition bi tey. way way loolu rek mooy moo am solo ah, il faut que ñu bennoo waaye suñu tasaaroo rek loolu dafa leen di affaiblir fu ñu tasaaroo dafa affaiblir mais nag déggoo bi loolu de toute façon il faut que ñu teer seen distance seen seen ambition individualiste mhm. personnelle mhm. ñu déggoo ci seen biir euh, comme la ma doon waxee léegi ni mm, opposition dafa bare ay ay leaders. Mm-hmm. ya nga xam ni bon yàgg yàgg leader de politique. mais amuñu amuñu base bu dëgër. Mm-hmm. waaw gis ni am na nga xam ne waxoon nañ def léegi ñu defoon seen preuve ma sonn nañ sax nekk maire mais euh, amuñu woon dara mënuñu di ci quoi benn liste la ñu nekkoon moo tax ñu nommé mais moo tax ñu ñu élire mais léegi. Euh, loolu dafa am changement mm-hmm. changement politique dafa am euh, opposition bi dafa nekk pluriel y a jeunes yi nga xam ne dañuy investir et am na ay partis yu nga xam ne parti man mobiliser la ñu. Mhm. surtout jeunes yi man nañ leen mobiliser. et lool nag ma yaakaar ni ne le moment pour opposition bi daal di def benn nekk ko bennoo mais nag soo gisee euh, opposition bi aussi euh, stratégie ma nga xam ni majorité moo koy développé dafay bañ opposition bi nekk bennoo. Mhm. dafa def leen tasaare xëcc ña nga xam ni Euh, ay postes rek lu ñu bëgg daal di leen neexale wala ñu proposer leen loolu moo tax opposition mënul nekk benn. waaye nag justement est-ce que foog nga ne seen image nañ ko mën a rafetalaat gannaaw élection yi ñu fi jógee gis nga li fi xew mel na ni euh, pouvoir bi réussir na tasaare leen euh, Idrissa Seck dem na fële ndax loolu tey gënul xajamal deru opposition. oui oui c' est vrai loolu nag contrainte la euh, contrainte mais ñoom ñoo ñoom xam nañ ko xam nañu stratégie bu bu bu majorité bi taral euh, tëral euh, pour déstabiliser leen pour disperser leen mais ñoom ñooy seet seen intérêt fu mu nekk seen intérêt su fekkee opposition bi lañ nag gëm ñu nañu ah, seen engagement wér na. sincère nañ ci lu ñuy def euh, nekk benn moo tax moom mooy mooy seen mooy seen voie ba nga xam ne daal mooy yoon bu nga xam ni daal mën na leen sauver ñoom. ci mm-hmm. ñu mën na yokk seen dëgër laay ci biir ci biir euh, opposition bi ñu mën a daal di proposer ci projet ay projet parce que ay projet lu ñuy def projet de société ba nga xam ne Sénégal yi daal ci seen bopp par rapport ak ak difficulté yi ñu am. ñu mën a mën a constituer ñu mën a nag constituer benn daal benn alternative mhm. politique mais su fekkee defuñu loolu nag suñu dispersé kooku dañ kooku day day daañu yàgg continuer opposition waaw kooku moom wër na daañ mhm. daañ leen battre su fekkee organiser wu ñu wuñu ci ci ci benn ci benn kàddu euh, am projet ñoom ñëpp ñu ñu ñu ñu ñu dankaloo daal di koy soutenir loolu la moo leen ci mën a ci période bi ñu nekk ñoo am aussi gëm-gëm c'est-à-dire que engagement mu nekk engagement bu sincère. Mhm. autour de projet ci loolu boog moo leen fi mën a sobee ci période bi ñu nekk. professeur Diaw tournée euh, yu njiitu réew mi acte bi dina ko door le douze gi ñu dëgmal euh, tey jii nan nga jàngatee yi lépp tournée économique jamono ji nga xam ne six mois rek ci des ñu dem ay local waaw tournée moom la ñu waxee tournée économique loolu daf may reeloo daf may reetaan loo parce que <laughs> dama am sama benn xarit xam ni Euh, mu ngi mu ngi dëkk ci côté Fuuta Fuuta la dëkk. Mm. waaw <laughs> muy wax ni mu may mu may wax ni tournée économique la ñuy wax mais en fait tournée économique lan lañ fay lan lan moo fa nekk comme économie parce que foofu région bu pauvre la dara nekk fa d'ailleurs amul dara amul hôpitaux yu nga xam ne hôpitaux yu dëgër la amul ay ay industrie agroalimentaire yu nga xam ne mën nañ ko mën nañ ci taxaw sukkandiku pour améliorer conditions de vie population pour créer ay emplois dara nekk fa donc li ñuy tournée économique en fait ça ne colle pas avec la réalité. méngoowul ak réalité wu nit ñi lu ñu dund. Euh, ma yaakaar ni tournée économique bii mu ñuy wax kooku slogan rek la et da d'ailleurs euh, euh, cadre yi ñu xam ne ñoo nekk ci parti bi ñoom ñoo ñoo fay wane ni am nañ fa doole am nañ fa ay base donc dañuy mobiliser population jël ay xaalis bu bare dikk ci def loolu nag du loolu mooy mooy développement économique politique du fekk moom lu ñu bëgg. Mhm. lu bëgg nañ ko wax mooy. nañu améliorer condition vie foofu sonn nañu comme waalu walo waalu sonn nañu suuf amuñu pro am nañu problème suuf am nañu récemment d'ailleurs le euh, ce benn village là pont gendarme Cootu Ndar li ñëw doon doon ñax ñaxtu di wax ni euh, seen seen euh, soble bi mu ngi yàqu mu ngi nëpp mm-hmm. parce que amuñu ay chambre de froide bi xam ne mën nañ ko fa conserver e donc war ñu ngi doon laaj gouvernement bi pour mu defal defal leen ay chambre froide kooku yàgg na chaque fois chaque année dañ koy dañ koy ñaxtu te kenn deful daar ci ñoom yaakaar na sax dañ leen zappé moom dégg naa ay ay jeunes yu di contesté nii kenn boolewu leen ci donc euh, ma ma ma yaakaar ne rek tournée économique kooku slogan la réalité bi beneen la réalité bu metti la réalité ndool te loolu la ñu war a euh, ñu war a saafara moo gën ñuy dem di def di ay ay spectacle populaire di fay ay nit ñuy dajaloo di def ay spectacle di wane ni ñu mën nañu mobiliser en fait loolu amul solo ci ci région bi lu am solo ci département yi mooy ñu développer condition économique bi. Mm-hmm. ñu développé ndóol ñu lutte contre bi ñu defal ñu def ay hôpitaux euh, li gis souvent mooy. na nawetu ambulance euh, chaque fois dama koy wax d'ailleurs nawetu ambulance bu Richard Toll lu muy def navette di dem ak euh, diggante Richard Toll ak euh, hôpital Saint-Louis mhm. alors que war nañu région boobu war nañu fa def ay côté boobu war nañ fa def hôpital buy njum wala yeneen yeneen département yi war nañ fa def ay hôpital fag nit ñi mën nañ war améliorer condition yu viwu yi si jigéen ñi sonn nañu foofu ci côté boobu ëllëg ñuy wax ni condition euh, euh, tournée économique y a rien d' économie dara ci économie amu fa ba ñu dem ñu ngi fay def tournée économique donc war nañu seetaat seen slogan boobu seet nu ñu mënee euh, saafaraal condition vie population muy Fuuta muy Waalo loolu moo ëpp solo dem foofu di def ay euh, défilé di yóbbu seen auto euh, wala ay leaders yi nekk foofu di wane seen bopp loolu amul solo lu am solo mooy condition vie population yi ñu développé ko par exemple su fekkoon bëgg na am contact ak population yi. Mhm. du dem du dem ak ak ak cortège yooyu. du fa dem ak côté dafay dem moom ci boppam dem si situation yi si population yi. Mhm. waxante ak ñoom ñu wax ko ay ay difficultés yu xam ne jàng moom lañ jàngal tool moom mu noté ko su ñëwee nag mën na seet naan la ko saafara plutôt que ñuy dal ay défilé di def ay caravane di def ay oto yu 4x4 dem foofu di défilé def ay mobilisation en fait ki xam ne correspondre dara ak réalité bi ne situation bu métti la la la population yooyu de jàngoon te war na ko saafara bala muy dem foofu di def ay tournée de spectacle politique yooyu. professeur jeexaleeg la xew ca Mali ci simili rek jàngatu ëllëgu Mali tey ji nga xam ne pouvoir bi ay militaire ñoo fa nekk. waaw loolu nag difficulté la euh, soo ko gisee rek c'est que ni euh, état amatu fa donc crise de l'état la euh, difficulté bu am bu bu vraiment bu metti la. Mm-hmm. réew yooyu du réew yu dëgër et puis am nañu ay problème aussi comme crise politique bi ak crise sociale bi. problème d'intégration ma yaakaar ne nag Mali war nañu def parce que armée bi moom rek may force organisée moi te armée bi ñëw ci pouvoir bi moom baaxu ci Euh, nu ñu def ñu leen war a dimbali ñu leen war a dimbali mooy organisation régionale yi comme la CEDEAO ñooñu war ñu seetaan euh, l'Union africaine war nañ ci jóg euh, bañ bàyyi Mali diggante Mali ak euh, puissance comme la France ñoom ñooy di def seen pression ci yi fa nekk war leen dimbali de telle sorte que euh, ñu améliorer condition vie population ñu mën a def transition démocratique ba na delloo euh, pouvoir bi civil yi mhm. ñu mën a organiser dimbali leen ba ñu mën a organiser seen espace politique mhm. seen espace social daal di def ay projet de développement pour améliorer condition vie malien yi loolu ma yaakaar ni loolu ñu war a def Euh, plutôt que ñuy bàyyi setaan Mali parce que lu xew Mali man na xew aussi yeneen réew yi ah parce que réew yi ci nekk yow benn ci ñoom dëgërul euh, euh, gis nañu ni situation yi amoon ci ci réew yu récemment et donc war nañ ci tirer ay leçons dimbali Mali ba mu dem mën a def transition démocratique. surtout que pays frontalier voilà voilà te mhm. voisin la te yow réew yëpp ñoo ñoo ñoo yem ah ñoo yem. Mhm. donc lu xew fii rek mën na xew fële te mën na am aussi ah, impact yeneen réew yi. Mhm. donc ma yaakaar ne nag war nañ ci jóg surtout région bi ci organisation région tout régionale ou régionale war nañ ci jóg di Mali Mali euh, Union africaine war nañ ci jóg euh, ñu bañ a seetaan de telle sorte que transition bi mën a am ci jàmm. Maliens yi daal di def ten élection élire président ba nga xam ne euh, projet am gis nañ seen bopp euh, stabilité mën a dellu si ci Mali loolu moo gën ci réew yi surtout suñu réew Afrique nga xam ne réew yu fragile lañu pour en rek euh, mën nañu am situation ingérable difficile la ba nga xam daal ay jafe-jafe lay indi. ñu lay gërëm professeur Moussa Diaw. maa ngi leen di sant. merci beaucoup.